yàlla bu baax maa mbokk yëpp. di leen ziar di souhaité nekk que ñëpp ñu ngi ci jàmm. Mm-hmm. te yal na jàmm yàgg ci dëkk bi. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa fi ñuy dooree laaj yi nag euh, mooy doyen. Mm-hmm. Samba Sall. Mm-hmm. doyen des juges jóge na fii bu yàggul. est-ce que mën nga présenter wu tam nga gën ñu wax lan nga bokk ak ñoom. Euh, ndem si yàlla ji yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana yal na suuf sedd ci kawam. Euh, man cousin wam laa. yaayam mook suma papa ñoo bokk benn yaay bi leen jur man at euh, sama maam ci booru ci wetu ki ñu ko denc mm-hmm. kooku moo ñu yar ak sama papa bi ma jur ñu màggandoor diggante Sokone ak dakaar waaye moom nag def na ay Foundiougne ak Kaolack ñun loolu la ñu bokk man sama ay leçon mm-hmm. ci moom laa ko daan réciter daf ma daan jàppale it ci ay exercice ak di ma surveiller parce que magee na ma quelques années quelques années. d' accord mais gis nañ ne nag euh, bi mu génnee àdduna. ak dossier bi ñu ko mujjee dénk di dossier wu Ousmane Sonko bi. Mhm. Euh, coow yi nag euh, daf ci daf ci bëri daal ngeen. ngeen gis ci wax yooyu. Mhm. yoo xam ne neexu leen. Mhm. ci koo xam ni. dafay nekkoon ba ci yàgg jóge fi. jóge fi waaw. dëgg la Sénégal dafa nekk réew moo xam ne nit ñi neexuñu waxal. te nit ñi foog ñu xam ne dee dee du gàcce. ndax bu doon gàcce yàlla du ko teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku gën sàmba yàlla du ko ko teg des honneur la loolu la sëñ Cheikh doon wax mu ni dee c'est un honneur te nit ñi foog ñu xamit ne gannaaw loolu yàlla dee la njëkk a sàkk ko dund ndax ku dem ci alxuraan yàlla wax na ko fa xalaxal mawta wal xayaata coow li nag dana bari ndax Sénégal réew la moo xam ni far farloo bi dafa bari maa far wala fii laa féete mu neex waaye nag dee du gàcce ba tax ñu koy re ñu koy reetaan te jàpp naa ne bu ñu xamoon nit ki dëgg dëgg dëgg yi ndax bu ñu nee nit ki baax na rek na ko ay mbokkam wax bu ñu xamoon nit ki dëgg kon ñëpp a koy bokk ñaanal te li ko ñaanal sax moo ëpp ñi ko reetaan mooy doyen Samba Sall mooy doyen Samba Sall ñi amul fu ñaan jógeewut ci réew mi mm-hmm. muy ci biir réew mi ci biir capital bi di ci biir fa mu dëkk di ci Fuuta di ci Kaolack di ci Gosaas ba ñoo xam ne sax kenn xamu ñuy woote di ko ñaanal. d' accord euh, moom nag yàlla dogaloon na ne yaram yaramam sutante woon na. Mhm. lañu la ñu njëkkoon dégg après ci lañ dégg ne dénk dañ ko dossier bi. Mhm. après nag ci la génn àdduna moom kañ la feebar. feebar bi yàggoon na. feebar bi yàggoon na du woon nekkul woon loo xam ne nii sax ci biir biir bi muy jël dossier bi la. waa feebar bi moom dëgg fa neex yàlla yàggoon na ba tane woon na bu baax a baax sax alhamdulilah macha allah feebar nag dafa jotewut ak dee dara. Mm-hmm. nit feebar na ba ñëpp foog ne dafay dafay dem mu jóg nit toog na it dara jotu ko mu xëy dem taw at xiin jotewuñu dara mm-hmm. Mm-hmm. kon feebar bi daal laalewul dara ak dossier bi bokkul dara bokkul dara bokkul waa li tax ñu laaj la loolu rek mooy gis nañ fi ñenn ci ay tele naan dossier bi dee leen xool képp kuñ ko jox fan ngay mujjee après ñu wanewaat leen loolu yéen en tant que ay bokkam waaw Sénégal dafa nekk réew moo xam ni ñoom dama jàpp ne ñoom am na ci ñoo xam ne pour ñoom dañoo coup d'état yàlla jël place am man loolu laa gëm dossier bi dafa mystique dossier bi c'est pas mystique et tout ça là yooyu c'est du cinéma en toute sincérité c'est du cinéma parce que li tax ma ni c'est du cinéma bu fekkee ne ni dossier bi dafa mystique ba mystique comme ñoom ni ñu koy waxee ni koy euh, euh, maanaam. Euh, koy ngandalee daal. waaw image bi ñu koy jox. waaw mhm. ah, mais kon kay kii ndey mbili bi nañ ko fi jëlee. ki tax taxaw accusé diw ne daf ma def lii ba tax coow li yëpp am ndax c'est de cause à effet bu ko accusé wutoon kon coow lii du am mhm. waaw léegi pourquoi kooku euh, mu ngi fi ba léegi pourquoi le mystique ne l'a pas atteint mhm. man loolu laa gëm d'accord loolu nga gëm ñu des nag euh, ci dossier bi doon nga mhm. wax ne doyen Samba Sall feebaroon na xawoon na sax tane laalewul dara waaye gis nañ ne joxoon nañ ko beneen juge Uh-huh. kooku nag communiqué bi ñu liir ci journaux yi ñun. dëkk uh-huh. ñoo moom mooy ne ginnaaw ba ma waxtaanee ak samay mbokk sama soxna samay xamel daal ñoo ma ne lii ak lii mu bàyyi. Uh-huh. yéen ngeen gis seen mbokk di doyen Samba Sall yaramun bi sutante woon. muy jëli dossier bi xanaa waxoo leen woon ak moom dara. wax nañu at moom ku nekk wax na suma papa bi ko yar mbokk yi amul kenn ku ko woowut. Hmm. mbokk yi toute la famille amul kenn ku woowut ne ko na bàyyi dossi bi. na bàyyi. na jël dossier bi mu bàyyi. ñëpp a ko ko wax man mii di wax ak yow. Mhm. woo naa ko te laataa ma koy woo sax suma papa bi ko yar euh, woo na ko ne ko Samba musuma la sant nga baax musuma la sant nga nga nga bañ lépp lu ma la musa wax rek defal nga ma ko jëlal dossier bi. nga ni leen nga wax sa médecin mu bindal la un certificat médical nga ni leen da nga tawat nga jébbal leen seen dossier nga génn ci ndax da nga am ay mbokk danga am njaboot il ne l'a pas répondu. ah tontuwu ko. tontuwu ko bi ma ko jotee ma wax ak moom mu xamal ma ne ma gor du daw mu ni ma ma ni ma mu ni ma bul tiit surtout man fay du am lu muy tiit ma ni ko dëgg la mu ni ma gor du daw man gor laa mënuma nekk doyen de juges ñu ëlbatiku jox ma dossier bi ma di ko daw un commandant mënul nekk ci bateau. bateau bi nekk en danger muy tëb le premier donc dafa nekk nit koo xam ne nit ñi moo tax ñiy reetaan xamuñu góor dëgg dëgg dëgg dëgg un de courage Samba ñaar la xam ci àddunaam lii lay won jom li dama lay jox benn anecdote bi mu nekkee xale benn yoon la mës a jël troisième ci seen classe sam di ko ci xas Samba jooy na ko toute une journée et des jours sax à partir de ce jour depuis ce jour là Samba musul jël troisième premier wala deuxième ba ni muy duggee université notam yi yëpp a ngi ci sama archive bu papa donc kooku maanaam mun nañ wax ne c'est maanaam nitu jom la par excellence Samba doo xam lu ko naxari doo xam lu ko neex il n'a pas voulu mais pourquoi pourquoi yéen yéen lan moo leen euh, animé woon ba ngeen ne ko bu bu leen jël dossier bi da ngeen ragaloon wala dangeen ngeen jàpp dossier bi politique rek la wala injustice daf ci am. wala da ngeen a ragaloon mystique comme ni ko ñenn ñi di waxee. non xam nga mystique euh, tout le monde est mystique tout le monde peut être mystique ku nekk ak mu ko jaral waaye dafa am foo xam ne àdduna bu ñu fa tolloo dañuy bàyyi lépp ci loxo yàlla li taxoon ñu ko ko doon wax rek c'était pour maanaam euh, dara bañ ko cee fekk. pour maanaam tamit la sécurité de la famille parce que un état état quel qu'elle soit n'a pas d'amis ils ont que des intérêts te Jacques Chirac dafa mus a wax benn wax mu ni la démocratie s'arrête la où commence la raison d'état donc li taxoon man personnellement ma doon ko ko wax moo di ne dëkk bi jamono jooju mu ngi métti ñu ngi lakk kër yi ñu ngi def nii am na ñu ci ay bakken yu ci dee à euh, telle enseigne que ñu assigné ko benn garde du corps mais man je dis que si un président mu ngi nekk palais ñu barricade ko mu yore beaucoup de garde du corps que ça soit le ministre wala keneen un juge des doyens ñu banaliser ko comme ça jox ko benn di garde du corps c'est pas noble. c'est pas noble balaa ñoo ñëw ci bi muy dajee jeeg Ousmane sonkook yooyu. Euh, waaye ñun liir nañ ba tey ci journaux yi. te dégg mhm. nañ ko tam ñu ne benn instant dafa dafa rawale moom njabootam daal génn nañ këram ba am fu ñu dem làqatu ji est que loolu am na. Ahmed keneen ku mu doonoon ku dul moom dana ko def. kon génnoon na këram dëggantaan. génn na këram dem fu ñuy wax ci booru hôtel Pullman dëkk foofu. Hmm. il n'était plus joignable. il l'a fait parce que tamit dafa yore njaboot. yéen mënoo leen ko jot. non bon am na nag suñu ay kenn ñenn peut-être une ou deux membres de la famille yu xam fi ñu nekkoon te loolu keneen ku mu mënoon a ci doon ak fi situation bi dëkk bi tolloon ba pare à part ça sax defu ko non seulement pour njabootam mais daf ko def tamit pour ses euh, euh, collègues magistrats yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci cité bi. Euh, dafa mujj génn cité yu magistrats yi fii. dem fële ca booru hôtel Pullman nekk fa. foofu la nekkoon avec sa famille moo tax après euh, mun naa leen envoyé ngeen teg audio bi il s'est il a demandé pardon à ses euh, collègues magistrats xamal leen na leen pression bi métti woon na waaye nag fii Sénégal nit ñi maanaam xàmmeewuñu ku jël ni justice di doxee ku jël dossier ak ku jël décision muy demandé magistrat wam yi ne leen ngeen baal maax ndax pression bi métti woon na trop ci yéen métti woon na trop ci man mm-hmm. donc ku mel noonu dëgg fa neex yàlla jàmm la doon wut mm-hmm. waaw d'accord léegi balaa ñoo ñëw nag ci wàllum euh, levée du corps bi ak bi mu génnee àdduna ak bi ñu leen waxee ne euh, làqu na ak yooyu mm-hmm. euh, bi mu bi muy bi muy dem jokkoon na ak sa papa bi muy dem xamalu ko kenn parce que bi muy gisee ji ak Ousmane Sonko yooyu yëpp waa wala këram nga fële la jógee rek dem tribunal. foofu la jógee dem sam papa bi la veille daf ko wax ne ko na bàyyi dossier bi mais tontuwu ko parce que xam naa ne connaissant le doyen des juges dafa jox sam papa trop de respect daf ko jox cër waaye tamit secret professionnel mayu ko mu xamal leen ne leen bu xëyee daf koy libérer il peut pas le faire. parce que ay famille. non wala magistrat yi. junj nañu ko rek ñun ñii. lu mu leen junjoon. man le jour même bi muy libéré Sonko il m'a appelé ci WhatsApp bi. avant affaire bi commencé. avant mu koy recevoir une demi-heure avant muy recevoir Sonko il m'a appelé ci WhatsApp bi parce que comme je n'arrivais pas à le joindre je n'arrivais pas à le joindre ma bàyyee ko message xam naa ne bi mu connecté waatee téléphone am connexion bi mu gis sama message yi il m'a rappelé ma ni ko sa liggéey la man mënuma ci dugg. seetal li la sa conscience may ak li la lu loi may nga def ko pour l'intérêt du pays. léegi lan la la junj. mu ni ma tout ira bien bu fekkente ni ci man dong la des réew mi du tàkk ku dee rek nag yàgg sa bàmmeel xëy na nag dina am ñoo xam ne dinañ ne mbokk moo nekk di wax waaye mbokk gi dafa am lu ko jiitu mooy dëgg gi ca yàlla li ma wax rek laa wax textuellement. loolu yow lan nga ci njàngat maanaam mooy du ma tëj Ousmane Sonko. man xamoon naa ne du ko tëj jour boobu bi ñu ci waxee xamoon naa ne incha allahu rabbi dina ko libéré waaw. loolu waaye am na daal euh, kenn ci seen i mbokk yoo xam ne moom dëggal na ni sax. Mhm. doyen daf ne nekkul ne moom moo euh, metre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire loolu c'est-à-dire. man mii di wax ak yow nii. Mhm. il ma laa di. ah mais moom bu bu sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko kan moo ko def alors. mais la hiérarchie fii Sénégal la on parle de démocratie mais ñëpp xam nañ ne Afrique la vraie démocratie. non hiérarchie mais mais greffier bi mooy toog ak Ousmane Sonko ak avocat ak moom moom mooy du bind. xam nga lim ma wax. dama ne ko léegi nag naka la fa mbir mi demee bi ñu paree ba pare ne ci jërëjëf parce que il faut tamit le remercie après tout ndax jàmm amoon na te jàmm jooju moom la ñëpp doon wër. Mhm. moom la ñëpp doon séentu mu xamal ma ne ma moom. placé wu ko sous contrôle judiciaire. ah mais kon moo ko placé sous contrôle judiciaire. ñi ci kaw. ay kilifaam. amee ah, bien sûr. mais c'est eux qui l'ont placé à ju. ñan ñooy ay kilifaam loolu Ahmed journaliste nga je pense que <laughs> di nga ko xam. ministre bi président Serigne Bassirou Gueye. ñi ci nga xam ne daal ñoo ko yilif. Hmm. ñoo ko ñoo placé Sonko su contrôle judiciaire mais du Samba Sall. ah mais xanaa cachet beeg. signé moom ku mu doon jàkkaarloo xanaa bu paree moom dina signé juge bi signé wala. l' état a de moyens. mais moom nekkul ne moo placé Sonko sous contrôle judiciaire. mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen nekkul ne moom moo ko placé moo tax loolu il faut que sénégalais yi xam ko. il faut que sénégalais yi xam ne sàmba Sall dafa sauver le Sénégal. mais li nga wax noonu garaaw na de. Ahmed. Hmm? Samba Sall bu ñu doon wax ne kan moo war a nekk l'homme de l'année ci année deux mille vingt et bii. Mm-hmm. moom la war a nekk. ndax jàmm or nañu ci jàmm. Mm-hmm. julli ci jàmm. delluwaat ci jàmm ñëpp nekkaat ci jàmm. gannaaw yàlla. du procureur du président du keneen du sëriñ du kenn c'est lui. Samba Sall il est mort. il est mort dignement ndax il s'est sacrifié ndax xamoon na li ko ci mën a fekk. mais kon yéen mbokk yi daal da ngeen jàppane décision bi Samba Sall waroon a def Ousmane Sonko defu defu ko maanaam fekkewul ay kilifaam dañ ko doon dicté. no Samba moom kenn mënu ko teg pression Samba Sall bi ma xam man xanaa mu ne xanaa mu changé ci diggante bi. ah ñu doon ñu gis ñu ne Sonko moom defaraloon nañ ko cellule lépp wala. Ah, mais xam nga waxoon nañ fi sax. waxoon nañ fi parce que fii moom c'est un pays da waxoon nañ fi wala dégg naa. Mhm. ne Macky Sall Ablaye Wade da nga ko doon préparer une chambre à Rebeuss waxoon nañ fi it ne sa Seck lii wëg lële donc. allah li ngeen yéen li ngeen jokkoo laa wax ak sa cousin li nga jokkoo ak doyen des juges mhm. loolu déggoo ko woon. maanaam ne moom mi ngi dund pression laa wax. mais pression bu métti samba pression bi mu doon dund doomu aadama antanu ko. bu jógee si nguur gi. xam na nga am pression du pouvoir pression des collègues pression de la famille pression d'un peuple parce que ñëpp a ngi doon séentu waay waay waay waay waay nañ ñu dimbale ngir yàlla jàmm am ci réew mi ndax jàmm la Sénégal xam mu nekk ci loxowu benn nit nga war a yow tous les jours xamuloo ndax boo génnee sa kër di nga dellu siwaat pour fekk ci sa njaboot dafa metti rawatina nag ci réew moo xam ne nii on a on vit dans un pays boo xam ne nii c'est un pays où il y a nit ñi dañuy génn di wax lu leen neex sans même savoir la personne bi ñuy waxal kan la. Samba Sall dem na ba wax ay mbokkam. Mhm. ne leen daal moom moom moom nguur gi sax la gën a ragal à quatre-vingt-dix pour cent que l'autre camp loolu dëgg la. il ma laa confirmé. yow mii mii di wax ak yow il ma laa confirmé man ñaanuma ku dul Samba Sall sax du ma wax ci moom lu dul dëgg muy dund ak muy dee. mu ne benn instant nguur gi la gënoon a ragal sax. il m'a fait savoir que mhm. moom il a beaucoup plus. peur de l'État. De l'État que... du camp de Sonko. Parce qu'un État est trop puissant et ils ont trop de moyens. ñu ci waxtaan di ci waxtaan bay dugg ci le cas de commissaire divisionnaire boobu ñu fi reyoon au temps Cheikh Sadibou te ñu retrouvé woon la comme au at euh, maître Babacar Seye ba ma sax ma ko ci dox dootul exemple ne ko am na fi sax au Maroc le cas de benn Barka bi ko Assane 2 di faagaagal reyee wuñ ko biir Maroc ñu ngi ko reyee en euh, France ñu waxtaan ci sax ba ma joxaat ko sax beneen exemple bu princesse Diana ñu ngi ko reyee ci pont de pont de l'Alma en en France ba léegi personne kenn waxu ci dara. kon bu ma déggee sax daal mooy yéen maanaam seetaloo leen nguur gi ci dee gi à cent pour cent loolu moom du ma ci dugg sëñ Ahmed yàlla rek a xam parce que dafa am benn affaire bu ma gëm mhm. boo demee ci alxuraan mhm. nga jàng suratul luqmaan luqmaan nekkul woon yonent mais yàlla daf ko joxoon sagesse mhm. bi muy conseiller son fils daf ne ko yaa bunaaya yow sama doom euh, innaha maanaam lépp loo xam ne nii rek yàlla doomu aadama def na ko lu toll sax ni grain de mhm. nga jël ko nëbb ko ci suufu roche bu keroog yomal xiyaamee yàlla dina ko feeñal